ba bi ngay nekk xale mbàkke mbàkke yi nga daan àndal sabotage bu ne wax nga leen ko bu ne wax nga leen ko lu ñaaw lu ne wax nga ko ngay nekk ci ñoom soxor googu moo dem ba attanoo ko nga jóge fi dem bokk ci wahabist yi nekk seen conférencier du conférencier waaye ñi nga daan àndal fii xam nañ leen danaa jox benn exemple sëriñ Seex mu sëñ Saaliw daa ngeen ànd ay jamono wax ju ñaaw ju ne daan ko wax te booba taxut ñu ngi nekk ay mag lool ba moom loolu daana yegg ci di ko def jël nga naan ko lu ne wax ko ci ngeen yàgg doon ay xarit ci jamono ba ngeen gëj gisante ba ngeen di mujj dajewaat yéen a ngi daje màkkatal mukarrama sëriñ Cheikh ànd ak sant busu hôtel ba ngeen dal nga ne ko nanga fa ñëw bañ fa ñëwee toog di waxtaan nga ànd ak sa moroomi naar yi ak ñi nga xam ne ñoo lay financé ngeen di waxtaan ci masala ku ne di indi say aaya ki hadis sëñ Cheikh na leen loolu de am na foo ko sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul wax fu gën a leer xam nga sëñ Tuubaa lu waaye di wax bu ko waxee mu gën a leer ba ko sëñ seex waxee ne loolu de sëñ Tuubaa wax na ko te loolu foofu la gën a leere yow yaa ko wax na ko bu fi indi waxi kooku keroog ataaya ji ngeen ataaya dañ koo jël xëpp ko seen kaw ngeen daw tasaaroo yéen ñëpp naar yi ne la waxoon na la bu fi indi ñii loolu xew na te yaa ko waral kon yow ku yàgg iñaane yoon nga ku yàgg iñaane waa Sëñ Tuubaa ndax daraja ji leen yàlla defal fonk leen nit ñi fonk nga ne ko da nga suufe da nga nar a sonn inna lasina amanu wa amilu saalihaati sayaj'alu lahum rahmaanu dan yàlla mooy seet ab jaam bu ko gëm te jëf-jëf ju mu def ci moom nit ñi bëgg ko bëgg googu ñu bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg ak njabootam na nga jàpp ne mën ngaa nekk ci réseaux sociaux yi wala nga nekk ba nga ba ngay dugg en 92 ci Ibaadu Rahmaan booba Dakar nga ne doon liggéey mënoo am tus ndax Sëriñ Tuubaa boo ko soxoree yàlla def lay koñe xéewal doo ci mën a am moo la tax daw dugg ci ñoom ba nga ba nga fa duggee ñu yóbbu la parcelle unité 10 tabaxal la fa nga yor daara di jàngal ak yu mel noonu naar yi la financé nga nekk sa xutba yi di dal ci yoon dal ci addiya lu ne nga wax ko ci mujj financement yooyu dakk nga daw ñëw ngëbu keroog bi sëñ Saalihu yégée ne yaa ngi ngëbu daf ne loolu lu mën a nekk ndax ñoom ñëpp ràññee na ne ak yàq ak coxor goo coxor nan la mën a nekk ba nga nekkee ngëbu xiiwali ñëwatul ñun am nañu agent secret dafa ñu ñu jàppuñu seen mbooloo yooyu ngeen seen suñu nit ñu ngi ci yéen di leen surveiller am na ñaar ñu mës a ñëw di leen nuyu boo fàttali koo jotaay boobu foofu ci ngaabu nuyu la su jotal la nga jekki-jekki daal ne man de fan yi sama jumaa ji xaw a taxaw war na maa yëngalaat nga xam ne kon sa yëngal mooy wax ju ñaaw war na maa yëngalaat ndax mbir yi war a ñëw ndax su dama ko bëgg a yeggale loolu yaa ko wax te naafiq gi nga naafiq mooy am ngay taalibe am na ñooy gën a ji fële ca boori Thiès dëkk bu ñu xam da nga fay gane ji chaque at da nga fay dem am nga fay bi te am na ñoo fa yàqu bañ yàqu am na yoon woo fa mujjee keroog ba nga ba nga fa demee dugg ca wana waa ba ñëwee ana sëñ bi dana daane ci duus bi ndax yàlla boo dee fonto nitam yi nit ñi duna jox cër te te foofu foofu foofu noonu ci boori Kees am na ñu fa jëloon jox leen nga di leen jàngal yow xam nga leen baayam xele ba mu la joxoon da koo rëccu xele ba xam nañ ko xam baayam mi ngi dëkk boole Thiès foofu ci ndiireen ba mu ñëwee sa daara nga danga da koo jàngal ba mu ñibbee baayam du ko yee dem tool mu saaga baayam te loolu yaa ko jàngal gis nga nit danse bi muy danse yaa ngi koy xam ci li muy formé soo gisee daara yi xale ñoom Ahmad loo yeeg sëñ bii nekk Mbàkke baaxunu maanaam ci ni ñuy informé nit ci koy xamee ndax man damaa xam ñi génne seen daara yooyu ni ñu mel ci laa xamee ne yéen ñu danse ngeen te nit ñi da leen war a moytu kon yow xale loom du yow yaay wax ci te yow mboolem ni nga wax ci màggal Tuubaa lépp dégg nañu ko dinaa ci ñëw bis bis émission boppam direct yow yow ak sa discours yi nga daan def démb ak barki démb danañ ci ñëw yëpp mi ñu garde yaa ko fi wax ak yeneen ba ngay door a tàmbali di jël sindii di di ko jàngale ak yu mel noonu bàyyi yeneen xasida yi wax ya nga waxoon ci sëñ Abdou Khadre bañ ak si fii tey mi ngi fi yaa ko fi wax yow moom jaaxaloonu dégg nga ñi ngay defar ñuy yàqu sal sàmbu Serigne Samb mi fi newoon di wax wax ju bon ja jamono bi koy wax mi ngi sa biir daara nga fat ko muy wax wax ju ñaaw jooju kon yow ñi ngay éventé sax yow sa école amul ku fay génne ku baax ba nga toog fii di wax ci wàllu ma màggal Tuubaa gi ngay wax tamit naan dajale mboo lekk ay lekk naan bis ba daa rëy waaye yéen ñu leen tane ndax yow ñun xam nañ la dangay dajale ay nit di di di di togg ay booli ceeb comme ni ko ñëpp di defee dajale mbooloo di foto ay bulet di foto ay teen yu yëggul di rey ay xar di ko foto di ko caméra di ko yóbbuwaat ca Abdoulaye ma leen nekkal Madina mu di ko wan naar loolu yéen a ko fi def kon yow looy wax ci Magal Touba xataa sax rajo bu ngeen ubbi sax da ngeen koy filma def ay course di ko filmer di def yëpp di ko yët naar yi ñuy seetaan loolu pour alal di gën a ñëw su ubbi ab rajo sax da koy màggal di def ay festival di topp dëkk àll yi nit ñu ñàkk ñi di leen taxawloo ci naaje di leen foto di leen jox ay palaate bulet ay palaate firil ay palaate warmuseel ak yeneen yen di ko foto nag yéen yéen ko fi def di kon yow looy wax ci màggal gi yow xalil lu demal seeta leneen te ba nga ñëwee nga mbir yi ruus ñu dem ba la nga taxoon nga dugg ci ñoom amatoo ko nga mujj ñàkk léegi sa programme mooy wahabis yi yaa leen yoral conférence dangay ngay dem di def ay conférence boo demee di yalwaan day jooy naan way ni santrokum fi diini fa xaaleykumu nasru loolu yaa fi wax di yalwaan day jooy loolu ko yóbbee gisagoo dara Abdoulaye ma nga taxawal naar ba nga taxawal mu wutal leen ndawal ngeen lekk bay secrétu di photo di photo di secrétu yor sa bant secrète bi di di ki secrétu loola mi ngi fi yaag axmaloo ngeen topp àll yi yor ay kaara ay dagg ay ay oto ndagg ndagg la ngeen di waxtaane ak la ngeen nekk lépp mi ngi fi kon yéen amu leen lu ngeen di wax ndax bépp dërëm bu ngeen financé ci réew mi da ngeen ko photo da ngeen ko filma da ngeen ko def lépp yóbbu ko Arabie Saoudite yóbbu ko ci réew yi ñaag yi yóbbu ko faneen ngir alal ji gën a ñëw kon yéen du yéen ay wax ci muridi wala yeneen ak yeneen xam nañ leen bu baax xam na li ngeen di dund alpha ba yow la toroxal ba nga jël sa élèves yu jigéen yi dindi seen bopp yi darape leen di utiliser foofu ci biir soxoodee ñoro la sa dépasse sa añ ak sa reer loolu xam nañ ko demal nga lijjanti loolu koo xam ne nag góor goo xam ne ne jigéen lay dundal jigéen ay ñaq di la dundal yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ànd ak saxaaba yi ñu jox leen ñuy togg kii wut matt kii wut ndox moom mu ne moo eftaal bi ñu ne ko mukk yow yonent bi yàlla mu ne déet yàlla dafa bañ dafa sip jëmm ju toog ñu koy defal léppam góor gu ni yëng ne yaa ngi woote ne yow euh, da ngay woote ci diine ne yaa ngi biir saxoo dee jigéen di la yoral sa dépasse boo soloo jigéen la solal boo lekkee moo la lekkal boo naanee moo la naanal yow looy waaraate góor gu ne lëm looy waaraate yow te nag boo jàppee ne la nga nekk biir saxoo de ñun xamuñu ko yaa ngi nax sa bopp ba seen foofu ngeen nekk sax dafay jàng am nañ fa ay agent secret yu ñu fa toogal foofu kay fii kenn mënuñu fee jaaxal kenn lu fi wax rek xam nañ ko kon yéen am na yéen am ngeen du leen doy seen daara yi ngeen def ci Sénégal lafay xew ci biir daara ya mi ngi résultat yi noonu kon dellu léegi ngeen lijjanti loola moo gën ci yéen ngeen da ngeen di wax ci Touba ak Serigne njabootam gu tedd kenn mu ñu fee jaaxal waaw ba nga dajee màkk ak sëñ la nga wax ci sëñ mag bi ngir naar ya nga ya nga jàkkaarloo woon mi ngi fi ak yeneen ba ci seen njiit seen njiit lu mag li muy muy muy Amed fii kenn jaaxalul waaw lam wax tamit ñu dégg nañ ko la Ahmad loo wax ñu dégg nañ ko waaw moom lam wax nga xam ne moo ko waxal boppam kenn nettaliw ko nga xam ne waxuma la sëñ tubaa wala ak njabootam waaye photo sëñ Tuubaa képp mënu ko supporter na ba duñ ko dugal ci lu moom am am yi ngeen am ci dëkk bi tamit muy ay magasin ki wota ak ñu leen di jàppale ci wàllu alal ni mu suma loxo bi leere lañu leere lañu leen seen magasin yi fi am ay kànkaay yére yu mag ngeen am ci dëkk bi maanaam dafa am naafeq goo xam ne yow yaa ngi bañ ab dëkk bañ ki sañ ci dëkk bi bañ ay doomam bañ ay sëtam ba noppi yow dëkk boobu nga am fa kànka kànkaay yére am fa ay jaayukaayu yére am fa ay oto am fa kër li ci sa dund murid yu mag ya nga xam ne ndeysaan seen xam-xam leen ni sax nga xam ne bëgg Sëñ Tuubaa rek ngeen nax leen ci ay discours ci Sëñ Tuubaa yow xaliloo bañ di la dundal di financer sa daara loolu xam nañ ko dem nañ ngeen lijjanti ji loolu bu ñu fi kenn déranger Atoumane Samb ak Kosoor yooyu Atoumane Samb yow sa kuréel gi nga yoroon fii ci réew mi ñu ne la yaa yor wàllu jirim yi asaka yi di jóge fële sa xoodi ya ñu ñu la koy indil yow yaa wax ne yaa ciy noos yaa wax loolu yow sa làmmiñu bopp affaire ba daanu nga ne léegi weeru koor rek maam la xéwal yi ñëw ndax ci la asaka yi ñëw moom weeru koor ngaa ne bu dul weeru koor kilifa yi ñoo leen gën a neex ak dund yaa ko wax waa seetal association bu ñu taxawal gir jirim yi adduna bi yow nga yaa ko représenté ñu jox la ko nga ciy dund di jaabante diggante campement euh, mbuur ak dakaar foofu région yi diggante digal yooyu ñu jox la yi jilim yi nga jàppee ko ab dund inna lesin yaakuloon amwaala yataama sulman innama yakulu naara fi naaran wa sayaslamu saxiira yow sam mbir leer na ku seen mag muy seen njiit yéen yëpp muy Amet Lo nga xam ne moo bindu téere moom tamit lañ ko fay ci téere bi ak la tax mu bind ko nga xam ne bind ko ci ngir yàlla alal juñ ko gere la mu xas ay mbokkam xas ay dëkkandoom xas ay maamam xas la ay baayam newoon mi ngi fi dem leen ngeen lijjë yéen du yéene jàngale diine la la la seen représentant ba waxoon ca en quatre-vingt-dix en dix neuf cent quatre-vingt-neuf quatre-vingt-dix ne ay alxuraan yëpp da ngeen ko def ONC ngeen ñëw mu financé leen mi ngi fi yéen amul benn wahabis wala ibaadu rahmaan bu gëm yàlla wala muy gëm yonente bi ñoom daal alal la ñu gëm bu financement yi ñëwee ñu yàq tarixa yi lu mel ni xeme suñ demee toog toog dara ñëwut ñu wax wax ju gën a ñaaw ku ëpp lu ku daq wax lu ñaaw rek yow yaay ëpp la ci biir bi loolu leer nañu kon béy boo ngeen bàyyi xel loolu li ñu li muy tëjee waxtaanee ma di ko fàttaliwaat mooy kenn koo xam ne waxuma la ngay bokk ak sëñ bi deret waaye yolal santal mbàkke rek mbàkke mbàkke ku sant mbàkke yaa ñu gënal saxoodee gépp yaa ñu gënal arséri gépp yaa ñu gënal tinis yi gépp yaa ñu gënal Égypte gépp yaa ñu gënal mbooleem monorel yaa bi gënal ñu réewi Asie yi ña fa nekk gënal ñu réewi Afrique yi ñu fi nekk sant Mbàkke rek kon jëleen naa kuy bokk sëñ bi deret wala ñu naan kii daal doomi sëñ Tuubaa ko jur kooku moom moo ñu gënal réew yépp yëpp gënal ñu àdduna bépp ba duñ ko kafe ay waxam lañuy dégg moom lañuy gëm moom la ñuy topp bu leen bu dee loola leen naqari ma xam ne da ngeen gën a euh, am naqar sëñ Tuubaa nag yàlla koo may ndax yëpp waxoon na ko nafayta kulla man xalaani fa xarab li ma yasuhu dawaaman saa kurab naqar wi ngeen dëkk ak tàngu xool gi moo leen yóbbi ci ngeen soxor ba añaan ba génn def rupture génn loolu naqar wow mooy ndax alku génn alku ak képp waaye daal du yéen ñuy jàngal diine du yéen ñuy jàngal tawxid du yéen ñuy jàngal lislaam du yéen ñuy jàngal lixsaan kum neex na nga dem ca tiktok baag fépp def milliards vidéo day gën di yokk di gën di baax rek day gën yokk di gën di baax rek waaw gën a yokk gën a baax gën a at mu ñëw daq moromam dàq at ma weesu woon loolu kenn mënu ci dara kenn mun ci dara ñi ngi sante yàlla bu baax ci def gim ñu def taalibe Sëñ Tuubaa ñi ngi sant yàlla bu baax def gim ñu def ñu bëgg Sëñ Tuubaa ñi ngi sant yàlla bu baax def def gi ñu yàlla def ñu dëkk Touba dëkk Sénégal fi nga xam ne fi la Sëñ daan teg tànkam ñu dëkk fi loolu moo nu gënal leneen duñ ko weccee ak lenn nag sant yàlla bu baax ba sëriñ bi liggéey bi des fi mu bàyyi fi am njaboot guy sàmm loola ba kenn mënu koo ruur mbooloo moo gis nag ni ma ko waxee woon mën naa am ñu cay ruur waaye ña cay ruur yow mu bokku ca mbooloo ma sa yoon nekku ci ña bokk ca mbooloo ma te yor kàddu yooyu ña koy ña nga koy ña nga koy jubbanti masalan bu dee yoon wi nekk mu yoonu murit communauté murit bépp muy sama classe gi léeg man mën maa jàdd def lu lu defuwut waaye su boobaa du yow ibaadu bi wala waxaa wahabiste bi wala yow mi bokk fa neen du yaamay yar ka bokk ci yoon yi doon suñ kilifa moo nu yar moo ñu teg aw yoon suñ saali dafa waxoon ne yaree da ko mu kàllaf mi ngi tàmbalee ci yar kuñ la yor la yéen kenn yarlawu leen murid yi man su ma defee lu dul noonu ñi bokk ci yoon wi doon ay kilifa moo ñuy yar man su ma amee ku ma war a déglu ku ma war a waar ma dem déglu ji ci ñi nekk yoon wi di waaraate ma dem déglu ji sëñ Abdourahman baa ma dem euh, euh, euh, déglu sëñ Ahmadou yi baa ma dem déglu ji sëñ Mbàkke Abdourahman baa ma dem déglu ji déglu ji déglu ji ay junniy junniy borom xam-xam yu fi nekk waaye du ma dem déglu kenn ci rajo ba mu naan day wax la muy wax wala keneen ca tiktok ba waxaa wahabis bu bon ba nga xam ne ak ibaadu rahmaan yi moom du ma leen déglu yéen du yéen ñuy waar lépp lu nekk ci biir woon wi te mel ni bukku ci wala mu rax ca suñ tubaa yàlla may na ko mu samp ay sët yoo xamee ne am nañ làmmiñ wu leer nañ am xam bu doy sëkk xam lépp luñ war a xam mën a gindee am ragal yàlla gu toll ni da rey ngi sa duna ci ñoom ñoo ñooy wax loolu kon du yéen yéen la ñuy déglu ngeen bàyyi xel loolu ñoo leen dàq xutba dàq leen a tari alquran ëpp leen yow mboole mboolem loo xam ne wahabi si ibadama ñi ngi koy woote ci diine ñu ñoo leen ko ëppale bu dee daaray alquran ci Tuubaa am amul seen benn dëkk bu am bu dee ay jàkka noonu bu dee ay donga Tuubaa cent mille donga lu ko ëpp mi ngi fi téeméeri donga waaw ak kon lu ngeen di woote rek ñoo leen liñ mokkal ci alquran ci ay nit Tuubaa année bu nekk dana génne fukki junni yu mokkal alquran li fi ne ci ay daar liñ fi jàng ci xam-xam li fi nekk ci ay téere nekkul ci seen benn dëkk maam bala seen benn dëkku baay wala seen benn dëkku nijaay wala seen dëkku mbokk kon dem leen wuti seen baay amul sa ab dëkk yéen ñi ne fi di wax ñépp kenn ku ci baayam amul dëkk amul ndax kenn ci seen baay ñi sax till bay sanc ab dëkk ñi mu wutoon jaan bay sanc ab dëkk kenn ku ci baayam ñemewoon loolu amul waaw kenn yenn ibaadu rahmaani wahabis yi kenn koo xam ne sa baay wala sa maam am na ab dëkk ndax kenn ñi muutoon génn ginaaw timis bay sanc dëkk wala kenn ku ñëw dem ci ab foore ndax ragal mbaam àll yi ragal till yi damaa jël la gaynde till képp seen maam ñemewu sëñ tubaa ñëw fii tubaa sanc ko muy ci ab foore fekk fi yi fekk fi lépp def ko dëkkub lislaam ñu dem ba lu bari ci ay murit di fi mokkale alxuraan lim boo xam ne amul benn dëkk ci àddina ku ko xam ne ko lim ay cadre yi mi xam-xam xam-xam boo fiy dégg am na ku ko maîtriser ba man koo jàngal seeni baay waa yéen lu ngeen wut ci dëkk boobu ah? su leen naqaree dem leen ci àll ba ngeen sanc ngeen sanc fa ab nii ba xam da ngeen kenn dana leen fa fekk koo xam ne yow mënoo sanc ak kaaf kaaf gu mat rek kaaf kaafu ginaar sax amul leen ko am gën moomal seen bopp koo xam ne balaa dund day day wax lu ñaaw ñu jox ko day xas ab julit ñu jox ko ñu jox ko lu mu dunde kooku lan lay wax koo xam ne benn ngaa dund dangay ngay bind ab téere fen caa fena fena fena fen ku ne nga tuumaal ko ci nit yàlla yi ñu neexal na nga ñëw Sénégal nag samp say koo samp say nit di wax kooku looy wax ci diine ban masala ngay gàggantee koo xam ne téere bi nga bind buñ ko seetee buñ ko xaajee fukki xaaj juróom-ñeenti xaaj yëpp ay fen la benn xaaj bi yëpp ay lënt la kooku looy wax looy wax koo xam ne benn ngaa wax dangay dem conférencier di fen di gaaruwaale lu ne nga wax ko murid yi ak yeneen tarixa yi ci des dégg nga ñu naan yaay suñu conférencier ngay wax rek looy wax amub dëkk suufu si jàmbur nga nekk yow koo xam ne fi nga def sa kër sax moomoo ko xaliloo fi mu def kër moomu ko ahmad loo fi mu def kër moomu ko ñi ngi dégg ñëpp ñu def ñuy wax seeni kër fañ def seeni kër moomuñu ko ay maami jàmbur ko moom te ña moom suñ tubaa lañ gëm yéen lu ngeen di wax koo xam ne yow suufu si li muy yaatu yaatu amoo fi dara dara